dal leen ak jàmm amee site internet RTV Dakar li gën a fës ci bopp xabaar yi dañ koy door rek kat yi nga xamante ne kii di maître Patrick Kabou daal di nag koy yëkkati moom nag la mu daal di xam ne rek ci bésu anniversaire boobu nee na dafa daal di rek triste ndax nekk na at boo xamante ne rek at bu métti la waaye nag féete ne ko te mënu cee waxtaan ak képp koo xamante ne rek ab jege ñaaleem nga rawatina nag nga nekk frère am ndax jamono ji am na ci ñoo xamante ne rek ñu ngay daal di dund lii di dictature kenn yóbbewul leen ko rek doon Macky Sall ak nguuram ba tey rek maître Patrick Kabou ne na nag démb bésu anniversaire am bi nekkoon na bés boo xamante ne rek bésu ñaan la woon waaye nag mu doon ci ñaanal nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy ay xaritam nekk ay rakkam nekk ay frère am ku ci mel ni Cheikh Omar Diagne Abdou Karim Gueye nitu dëgg Ndeye Mati Niang Ousmane Sonko Olivier Boucal Toussaint Manga Aliou Sané Mortal Gueye ñoom ñëpp nag ñi nga xamante ne rek jamono ji ñu nga ca ndungu siin ak seeni moroom ñaanal na leen nag yàlla libéré leen ci jàmm ak salaam ba ñu delluwaat ci seen njaboot ba tey rek moom maître Patrick Kabou la xamle ci bésu anniversaire boobu ne ne nag ñaanal na bu baax ki nga xamante ne rek moom mooy François Makabu ak Fulbert Sambou mi nga xamante ne rek dañoo ñàkk seen bakkan yàlla yërëm leen xaral leen àjjana ba tey rek mu daal di ci na daal du tàyyi rek ci état bu Sénégal nag mu daal di indi ay leeral ci nu mu gën a bi nga xamante ne rek eh, kii di Didier Badji daal na am ba tey rek la mu daal di xam ne ne na nag rêve bi nga xamante ne rek moom lay souhaité mooy Sénégal boo xam ne bu libre lay doon Sénégal bu juste Sénégal boo xamante ne rek bu dal la ba tey rek bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wutali kat yi nga xamante ne rek daal dinañ koy yëkkati ñeel Ousmane Sonko mi ne rek jamono ji mu nga ca Cap Manuel niki novembre bi tey bu ñu sukkandikoo ci sunu nattangooy les échos ne nag kii ay visiteur am gannaaw daal bi mu ko yóbboo denc ko fi nga xamante ne rek moom mooy ca Ndungu Siin ba tey moom nag la daal di xam ne ne kii di Ousmane Sonko nag am na ñaari visite yoo xamante ne rek ñu ngi ko koy defal mu xaaj leen ñaari xaaj ku ci njëkk nag mooy ab xaritam yi ak beneen bi ci topp rek mooy yi ak njabootam ba tey bu ñu sukkandikoo ci laal suñu nattangooy les échos la mu daal di xam ne rek mooy kii di Ousmane Sonko nag ma ngay jot képp koo xamante ne rek mbokkam nga jege ñaalem nga yaa ngi koy setti foofa ca prison bu Cap Manuel waaye nag benn yoon rek lay am loo xamante ne rek dina koy xaw a touché maanaam buy def li nga xamante ne rek moom mooy waxtaan ak ñenn ci ay avocat am dañuy gis garde pénitentiaire boo xamante ne rek day nekk ca wet ga du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar bës cloche de notification ngir amaa yeneen